ziar njabootam te koy xam naa masaw ndax ñun dalal nañ ko fii ba taay moo ci mujjee dolliku ci liñ yëg man naam entre temps am ñu ci dolliku te ko ko Cheikh Omar suñu waa ji gars yi teeti nañ ko ak Abdou Karim Gueye xunqax nga xam ne ñooñu ci ñun la ñu bokk te mën nañ ko dañ koy assumer ndax suñu nit lañu ñun dañuy nangu suñu nit loolu moom amuñ ci masla fi Sénégal Sénégalu tey gi ñu toll ak mhm. euh, quelque mois de des élections Euh, année bi normalement waroon na nekk année électorale ndax 2023 2024 mhm. moo ci topp c'est-à-dire buñ bu ma la ne tey à quoi joue le président de la république Macky Sall et la justice sénégalaise ban tontu nga ci nga ma ci mën a tontu. waaw da may ma nuyoo waat rek. waaw ay euh, bi yoon may nuyu euh, suñu mbokk yi ñu jàpp yëpp. en garde à ak ñu nekk ci prison. ñoom Cheikh Omar ñoom Abdou Karim ak ñoom El Malick ak ñoom Bilal ñi ñuy doog jàpp nii ñëpp. Mm. maa ngi leen di nuyu di leen masawu. ak ñi nga xam ne euh, ci lu woyof euh, dañ leen denc kaso bi boobu ba léegi lu mel ni Hannibal Djim nga xam ni ay dajale xaalis la doon def Fadilou Keita nga xam ni poste la doon def ci deewu Fulbert Sambou ak ñeneen ñoo xam ne li ñu leen jàppee amul solo te li ko lal rek mooy politique euh, maa ngi leen di ndokkeel li leen masse wu yëpp ñoom ñëpp ak ñoom di nit dof tout le monde ku lim mm. juum ñooñu ñëpp dañ leen jàpp ci lu dul dara léegi nag loolu dafa am te je crois que dara fekk gu ci président Macky Sall ba léegi moo tax muy continuer mais man jàqare laa gis ci li muy def nii maanaam ku yëngu mu jàpp ñaar la njàqare ak jéem a xuppaate maanaam bu jàpp gi bëree nit ñi dañu ragal wax booy wax sax ñu la eh moytu man ci tukki bu gàtt laa jóge ñetti fan mais ñu ma naan bul dem Dakar dañ lay jàpp bul dem dañ lay jàpp parce tellement dañu annoncé ni jàpp nañu Clédor bàyyi nañu Clédor te te tey nga dégg ni jàpp nañu docteur Babacar Niang. man tey sax am na ko ma la laaj ne ma Clédor moom. effectivement dégg naa dañ ko jàpp ma ne ko non Clédor jàpp nañu ko. ñëpp fa nga koy wax. parce que nañ jokkoo ci te ñoom ñoo koy nee na jàpp nañ ma RFM. ñoo ko wax Assane Gueye El Hadj Assane Gueye ni Clédor jàpp nañ ko. te jokkoowul ak yow ba man cee xam dara. ban jokkoo ak man moom ñoom dafa joxe information te man man maa ngi nii. donc xëy na lu ñuy waajal la di ci waajal nit ñi bu amee mu doon lu sedd peut-être loolu la mais euh, jàpp yi du lenn lu dul jaay doole kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fi moo fi nekk gis nañu ay nervi yi def conférence de presse ni ñoom ñoo yore seen ay jaas ñoo jënd seen ay jaas yi dañ koy assumer xaw ma ndax gis ngeen vidéo gis ngeen vidéo boobu ñoo jënd seen ay paaka dañ koy assumer conférence de presse la ñu def xam nga arme nga armé wane ni yow yow xeex physique nga jël bokkul ak ki woote résistance bi nga xam ne constitution da ko prévoir da ko sorale droit à la résistance man woote naa résistance hmm. kenn jàpp ma Ousmane Sonko woote na résistance kenn jàpp ko Cheikh Omar Diagne li mu wax hmm. maa ko njëkk a wax hmm. ci conférence de presse après def naa live ni li mu wax ñun ñett ñoo ko waxandoo ñoo porté responsabilité bi parce que conférence de presse conjointe la ñun ñëpp dañu woote daje bu mag pour contester président Macky Sall léegi loolu naka nga ciy seppee Cheikh Omar Diagne bàyyi Clédor ak Damboj te ñoo bokk même kàddu ku ci nekk jàll na ci même kàddu ci même jotaay bi c'est parce que étiquette religiosité boobu moom moo leen jaaxal ci Cheikh Omar Diagne mais fàttali ni kooku quand même dafa créer parti politique chef de parti politique la euh, wax na ni am na mbébétu présenté wu à l' élection présidentielle. Hmm. donc moom nëbbul ni dafa jox place bu mag a mag ci diine rassemblement pour la vérité vérité en majuscule mooy mooy mooy dëggu yàlla donc kooku dañ ko singali parce que waxu fi lu ma fi waxul waxu fi lu fi daam waxul léegi nag. mënuñ ñu mënuñ ñu noot ba du ñu wax Macky Sall moo fi mujj gënu fi doon góor gënu fi doon gor te moomul réew mi mënuñu tiire ci kaw suñu oto oto dàmbooj cet impact de balle ñu ni duñ ko dénoncer duñ ko ñaawlu duñ ci artu dañu def conférence de presse ñaawlu loolu parce que mosul am parce que daam jëlul ay gànnaay sànniwul xeer taalul pëna moom débat lay def lu ñu teg moom mu teggi ko loolu bu leen méttee nañu wut seen ay débatteur mais lu ci jar rey nit wala attenti nit kon loolu dañ ci àddu te te li muy indi mooy nit ñi décider jëlal seen sécurité bopp parce que man nee naa publiquement man koy baamuwaat ni autorisation ou pas autorisation man danaa gànnaayu pour sàmm sama sécurité kooku na ko procureur dégg mu leer parce que du ñu toog fii nit ñi def ay conférence de presse naan ñu suñu jaaseeg suñu paaka ak yooyu man ma toog di xaar ku ma yóbbu cimetière ñu yóbbu ma kasoo ma gënal comprendre nga donc loolu message bu bon bon la bu nguur gi di di transmettre parce que citoyens bu ñu demee ba amatuñu sécurité ba bëgg a jëlal seen bopp seen sécurité kooku mu ngi jëm ci leneen léegi lii yëpp nag li ko waral mooy li nga laajoon sëñ bi Euh, xaw ma laajoon nga ko ki ki toogoon ci siège bi. xaw ma ki bëgg a toog sëñ bi ko junjoon. <laughs> donc loolu ki toog ndax daa war a able wala daa war a. waaw wéy di conserver siège bi euh, ñun ah. du ñu xaar sax mu mu àddu parce que mu mu ngi koy jëfee. parce que nee na sa candidature est recevable ci wàllu yoon. loolu waroon na am kersay wax ko léegi euh, li mën a indi jàmm ci dëkk bi ñaar la ñu respecter li ñu boole muy constitution bi moo fi nekk nii pour que nul n'exerce plus de deux mandats consécutifs. bu noppi respecter les droits civils et politiques de tous les citoyens maanaam jéem a bañ a jëfandikoo yoon pour gàllankoor benn candidat wala jéem a jëfandikoo parrainage wala code électoral pour gan gàllankoor benn candidat. tànn ni ñii ñooy dem élection moom mi warul dem mu ni day dem ñu war a dem ñu ni du ñu dem ñi war a voter te wóoluwu leen euh, ñu bind seen carte d'identité non inscrit sur les listes électorales. loolu ñu war ko dindi ci diiru juróom benn weer euh, benn benn communiqué. Antoine Diome ministre communiqué dal di toxal loi loi boo xam ne assemblée ko voté ni léegi juróom-benn weer yooyu ñu waroon a binduwaat léegi président dana dana dana fixé beneen kañ kañ lay doon président ñëw jël benn décret ni léegi sax benn weer la te benn weer boo boo jëndee jour non ouvrable yi ak férié yi 24 jours lay doon kon foofu ñu ngi exclure 75 euh, pour cent de la population yi nga xam ni amuñu plus de 35 ans ci processus électoral léegi xale yooyu. naka la ñuy seen opinion ci beneen anam du ci du ci carte ñooñu da leen di exclure donc loolu munoo nekk di ko def ñëpp di la seetaan nga ni da ngay présenter wu pour jiite réew Macky Sall dootul jiite Sénégal. kooku beneen beneen débat la kooku. ak nu mu mënti def. ñun ñu ngi koy xaar rek ba ci cëppaandaw gi. Ah, du dana mës a wax sëñ bi ah la solution. Hmm. ñu ngi koy xaar foofu na wax. Ah. parce que man mi euh, gis nga bi ñu ma arrêté 2021. waaw ci affaire menace de trouble à l'ordre public. Uh-huh. dañ ma laaj loo xam ni bokkul ak li ñu ma arrêté woon te lu leer laa leen tontu. lan la ma leen tontu dañ ko bind ci procès verbal ma signé ko. Uh-huh. dañoo enquête menace de trouble à l'ordre public mooy ma audio boobu rek. waaw ba daa ba jeexal enquête bi benn officier ñëw wàcc glissé benn papier enquêteur bi déy ko ni ko kii nee na nga xool noo ko noo ciy noo ciy dugalee lii. mu ne ko mais yéen lan ngeen di dugal encore. mu ne ma non question réponse rek la mu ne ma ndax reconnaître nga ni euh, yaa wax ci benn vidéo bu fekkee ni Macky Sall présenté na troisième candidature da ngay woote fipp dama ci tontu ma ni ko non seulement damay woote fipp parce que ci français laa ko wax waaye maa koy jiite. je persiste signe et jure sur l'honneur que si le président Macky Sall postule pour un troisième mandat, non seulement je, je, je, je sonnerai l'insurrection, mais je la dirigerai. ba noppi tegal leen ci et j'assume l'entière responsabilité pénal de tels propos lépp lu nga xam ne moo ci juddu pare naa ko gàllo boobu maa ngi seen loxo ñoom ñu ñu liiral ma PV bi ma signé ko dig ñu yóbbu ko ci juge bi donc loolu ñoom xam nañu sama position ci loolu position boobu weetuma ci constitution bi dinañ ko respecté bu ñu demee ba tubaab yi naan ko na respecté constitution bi ça veut dire que tiit nañu ay yëngu-yëngu gis nga tey jii Macky Sall daf ñu bëgg a yàqal dafa bëgg yàqal Sénégal parce que dëkk bi fi mu toll comme ni ko la solution wax toog ci buntu naatànge bëgg-bëgg benn nit bu teguwul ci yoon bi ñu tënk ñun yoon bi ñu boole muy constitution ak loi électorale ak yépp président Macky Sall mënatul présenté wu. amul ay débat sémantique. amul ay quinquennat ki mandat. mandat naa mandat la septennat mandat la ñaari mandat la ñu wax yu toftaloo nit ki mënu ko am. kon tey jii. bu fekkee ni loolu moo tax ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci yoonam suñu genre yi nekk dans les plateaux. Hmm. di propager loolu ci xelu nit hmm. ñu ne dañ leen di éliminer. te sama gars yi euh, Pape Maguette. Hmm. Euh, yëg naa for naa ci wéyu béy ni ñu ngi leen di waajal Tambacounda. parce que dañu jàpp ni kaso yi fii dafa am noflaay trop ci ñoom parce que dañuy jege seen njaboot yi leen di indi lu dul jeex lu leen neex léegi dañ leen di yóbbu ba ci ba ci ajak jàpp donc ñu ngi ci ñetteeli retour de parquet retour de parquet pour sonal nit ki la parce que garde à vue ci ay karo lañ lay teg amul tëdduwaay amul dara tànku neen ci sedd bi donc pour sonnal la ba nga sonn maximum li leen yoon may ñu doog lu yóbbu kaso te ñoom xam nañ ni dañ leen di placer sous mandat de dépôt parce que moom ak Euh, euh, euh, Abdou Karim Gueye ñoo bokk discours ñooñu ay njabootu imam Alioune Badara Ndao lañu d'accord kon jaay doole bi ñuy def nii may mhm. ma tuuti rek mhm. ak arestation arbitraire yi ñuy def nii mhm. dafa jéggi dayoo rawatina nag buñ ci boolee ay rey d'accord ci dañ ñëwaat ci yow non rey yi bi na moo tax may wax bi na waaw parce que fa laa jóge loo ci loo ci bëggoon wax préfet bi nekk foofu nga xam ni moo fa nekkal nguur. waaw responsabilité am dañ koy interpeller parce que ay manifestants waruñu leen tirer ay balles réelles ba mu am ay moor ak ay blessés te foofu dañ fa jàpp ay xale yu bëri. Mhm. loolu day gën a yokk tension bi man ba may jógee euh, Kafountine di di jàll. dañoo tëj Bignona chaque jour dañ koy tëj tey ci suba bëggoon naa dem Bignona dañ koo tëj. parce que avion laa ñëwee moo tax mu gaaw tey ci suba dañ koo tëj parce que foofu kenn mënu fa dugg parce que rey nañu ay nit à balles réelles te du benn yoon du ñaar yoon kon loolu lu ñuy metti la lu ñuy dénoncé la ah. ci jaay doole ba comme comme ni ko Xaadim Sam doon waxee naan président dafa war di tëj di rey moom mu ngi nekk di tëj di rey léegi nag il faut l'arrêter <laughs> léegi il faut l'arrêter arrêter boobu nag mooy résistance loolu mënul tere kenn yëkkati baatu résistance parce que loolu la réew laaj te ci lañ jëm nii d'accord euh, maa ngi ñëw ci yow sëñ Ibrahima ma dem ci euh, sëñ Baas ndax xam naa mel na ni ci moom laa war a dem fi mu